jéego foog mu am quand même ay concertations et ces concertations là peut que c'est au niveau sommet de l'État yi nga xam ne gars yi ñu ngi ciy waxtaan et pour bientôt les dispositions yi nga xam ne état jël na ko son excellence Bassirou Diomaye avec son gouvernement mm-hmm. sénégalais dinañ gis lan lañ jël yan mesures lañ jël mais aussi quelles sont les les opportunités d'emploi yi nga xam ne mën nañ ko teg sur la table pour au moins même bu fekkee dàquñu fi définitivement la question de l'immigration mais au moins nous allons euh, soulager euh, ces jeunes ñi nga xam ne ils sont à la recherche de l'emploi mhm. bëgg nañ liggéey te bëgg ñu sénégalais yi dem ni ces jeunes là bu ñu amoon tey le meilleur ils vont jamais quitter les frontières du Sénégal mais loolu yëpp c'est les conséquences de tout genre de gestion nébuleuse et gabegie il faut que loolu aussi ñu nangu ko en six mois on peut pas régler cette question d'immigration mhm. donc nous ne pouvons quand même que lancer un appel à la jeunesse sénégalaise à la patience pour bientôt tey li nga wax noonu moo waral sax bañ egg à la dissolution de l'Assemblée parce que indi nañ suñu loi d'orientation lan moo ci am dañ ko rejeté ñi ñëwoon pour am ay institutions yi nga xam ne dañ ko tegoon fii c'est des institutions budgétivores xam nga yi nga xam ne seen bopp lañ fi nekkal ñu rejeté ko mais te il faut dissoudre pour au moins mu am benn DPG bi nga xam ne son le PM dina ñëw mu wax leen voilà les orientations yi nga xam ne fii laa bëgg a yóbbee Sénégal yi ñu xam ni la question de l'emploi dinañ ko jël la question de l'éducation dinañ ko jël la question tout ce qui de la justice ak yeneen gis neen tey réforme yi ñu def au niveau de la justice au niveau de l'enseignement supérieur gis nañ les mesures mm-hmm. qui ont été prises donc c'est-à-dire ñi ngi teg ay jéego mais d'où l'importance que même trois mois yi nga xam ne le premier ministre def na ko fi mu defoon déclaration politique générale am foofu ci assemblée parce que dinañu permettre quand même ñu xam la ñu teg pour pour pour mbëkk mi bien sûr. xam nga tey pour nga mm. def une politique générale xam nga le délai n'est pas prescrit dans la constitution le délai de déclaration de politique générale. war na koo def. Mm. c'est vrai mais léegi boo ñëwee pour def da koy def. par rapport à des représentants à des parlements du peuple par le peuple et pour le peuple mais bu fekkee yow da ngay ñëw di def sa déclaration nga fekk fii des parlements yi nga xam ne seen bopp lañ nekkoon ils sont pas pour le peuple ils ne sont pas les questions que mon co a souligné n'a jamais été débattu au niveau du parlement donc yooyu noonu naka nga mënee ñëw nga am un projet nga am une politique générale nga koy wax ay nit emploi des jeunes leen di wax éducation bi lii lañ ci bëgg nga leen di wax te ñi lay wax des questions de personnes je pense que il y avait quand même raison ñu mën a dissoudre xaar ba am une majorité confortable avec des profils qui répondent au parlement à la fonction ou bien au rôle même d'un vrai euh, député donc je pense su boobaa dinañ ñëw d'ici deux mois bu ñu paree élection yi mm-hmm. DPG à la kulli aali dina PM dina ñëw devant les parlement mu tenir leen les orientations ak fan lañ fas yéene yóbbu Sénégal ci cinq yi nga xam ne la ñu fal. donc on demande encore un peu de patience à nos frères à nos sœurs et à la population sénégalaise. d'accord très ñëw si Baye Ablaye monsieur nga jàpp ne aujourd'hui moom la ñu a